Uh-huh. ñu cabaxal politique tuuti balaa ñoo dem. Mhm. yaa ngi nekk Diourbel ak limogeage Dame Diop bi est-ce que seen parti bi menacé wuñ leen foofu ca diwaanu Diourbel. le président Macky Sall n'a absolument rien à craindre au niveau de Diourbel. ah dañ koy félicité si choix yi nga xam ne def na ko jël sunu petite sœur madame le le ministre Fatou Diané daf ko ministre de la femme. Mhm. jël également sunu beneen sœur donc madame Marie Khemesse Ngom daf ko ministre de la santé nomination yooyu nga xam ne def na ko. en tout cas ñun ñi nga xam ne ñoo nekk responsable politique de la l'APR et de la coalition au niveau de Diourbel ñu ngi ko si félicité di ko rassurer aussi que ni ñu doon accompagner yeneen ministres yi. Mhm. noonu la ñuy accompagner ñi fi nekk. mais li si gën a am solo aussi mooy dañu génn ay élections. Mhm. locales on nous a battu législative le président Macky Sall jël Fat Diané jiital ko au niveau de législative moom Fat Diané mu ñëw avec le candidat donc monsieur le maire Malick Fall. ñu am une démarche inclusive et participative convaincre tous les responsables de Diourbel ñu accompagner leen ba ñu am cette victoire là. Mmh. donc aujourd'hui su président Macky Sall jëlee Fat Diané donc daf ko ministre au niveau de Diourbel donc je pense que dafa nekk loo xam ni ce sera une continuité. Mmh. et je suis convaincu aussi que entente bi nga xam ni tey am na mhm. au niveau des responsables. Mhm. muy mmh. directeur du CROUS Moustapha Guèye le directeur de l'AME Euh, muy ñoom docteur Alpha Kounta le maire Malick Fall notre grand frère Thierno Diop et tous les autres responsables il y a une cohésion d'équipe boo xam ni am na et je pense que cohésion d'équipe boobu dinañ ko continuer ba li nga xam ni am nañ ko mu nekk quand même euh, quelque chose d'extraordinaire mhm. parce que département yi gagné pendant les élections législatives on les comptait du bout des doigts mhm. mais par la grâce de Dieu et par cette cohésion et cette démarche